kii ñu ngi fii ci Cordec euh, nekk fi nag tey seet si waa Cofdec ki ñu taxawal nii mooy président bi di sekk Ndimbalane daf liggéey bu am solo parce que xam ngeen ni ci ay bés yu ñu génn rek lañ taxawal euh, coopérative bi nii mu nekk coopérative pour Koungheul naatal Koungheul moom mi ñu taxawal nag mu def ci liggéey bu am solo parce que ñu bëri ñu ngi leen wax ne coopérative bi tey du génn gerte mais génn na ay toni toni gerte te am na leneen lu xam ne mu ngi leen ko dencal xam naa bu ñu seqee moom waxtaan rek wax nit ñi lu bëri bëri lu xam ne euh, am na ci biir sëñ ñu ngi lay nuyu Euh, Matar maa ngi lay fay. ok comme ni ma ko waxee ci gannaaw rek COPEDEC def def nga ci liggéey bu am solo parce que tey ñu doon wax lu bëri ne mbir mi du nekk nekk na tey est ce que mën nga ñuy ñëwaatal ci mbir mi nan ngeen def ba jël li mel nii joxe ko ci ay tonne tonne yu bëri tonnage bi xam naa xamul ñaata la da nga ci ñëw mais nan nga def ba décroché lu mel nii. Euh, jërëjëf Makhtar ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. Mm-hmm. di wax ne rek euh, euh, dëgg la mbir mi bu ñu ko tàmbalee. Mm-hmm. xawoon nañu am jaaxle ndax diggante bu ñu falee conseil d'administration bi ak nawet bi dafa xaw a jafe. Mm-hmm. ba tax na sax moo waral tardement bi. mais yàlla daf ñu am relation ak Sonacos. bu ñu demee Sonacos am fa relation. di suñ diggante ak moom ñu waxtaan ci. ci ndimbalu président Assane Diop président conseil départemental. waxtaan ak ñoom. Euh, bañ accordé ñu cent quarante huit tonnes yoo xam ne euh, gerte kook lay doon. gerte ko moo nekk nii. Euh, waaw moo nekk nii gerte gi nag gerte gi mucc ayib la. Mhm. bi mu muccee ayib dañ ko taaraar ba mu set ñu conditionné ko def ko ci saako yu baax. def ko mhm. cinquante kilos. Mhm. ñoom ñoo ko conditionné taaraar ko amul benn suuf. ñu jox ñu ko. condition yi ñu ko joxee nag bor la dañ ñu ko lebal. bi ñu lebalee dañu waxoon ne. dañuy def dix pour cent. dix pour cent yooyu mooy kelo bi euh, cent quatre vingt dix lañ ñu lebalee gerte gi. ñun nag ñooy def fere yi ko jëlee Sonacos andi ko ba ci magasin bi fii. loolu ku ne xam na ne euh, évacuation jëlee di Kaolack ñëw fii euh, opérateur yi xam nañ li may wax tonne dix mille franc la ñuy fay. fii ak Kaolack. bu traité. donc ñun samay oto moom laa jël. andeeku gerte gi ndax amoon nañ problème mu transport parce que. bu ñu ko ci bëggee yokk ca prix gerte ba yokkaat ko ci nga xam ne dañ koy fay léegi day romb 10 pour cent yi Sonacos laaj Sonacos laajoon nañ ma 7 millions 400 mille pour apport pour 138 mhm. tonnes yi lijjanti naa 7 millions 400 ba dugal ko mooy 10 pour cent yi nga xam ne moom lañ def apport ci ku jël tonne mhm. joxe euh, bërigo boo jël joxe ñaar dërëm ñaar dërëm to euh, euh, bërigo bi 5000 la tonne bi nekk 20000. boo jëlee juróom-benn bërigo juróom-benn junne ngay joxe boo jëlee fukki bërigo fukki junne ngay joxe. donc loolu la Sonacos laa jot mooy 7 millions yi 7 millions yi man maa ko génne am na nag compte bi lu ci joroon na ne loolu laa jël matut xaajut sax maa ko jël boolante jël suma xaalis yokk ko ci pour ñu mën a décrocher affaire bi. ok loolu moo tax ñu gën a ñëw parce parce que euh, li nit ñi dafay seen adara comme ni ñu ko waxee. ni ñu adhéré bëriwul. Mm. matul loolu noonu. Mm. tey nga yëkkati sa alal def ci tout simplement pour tout simplement pour département Koungheul nekkaat ci jàmm comme ni nga ko yàgg defee saa su ne. Mm. la nga ñu mën a waxaat loo xam ne tamit bu nga ko bettee nit ñi xam ne ne doo yem ci lii seulement. parce que ku wax gerte wax engrais. est-ce euh, ci ci loolu sax bon accordé loolu nañu cent cinquante tonnes engrais. Mm-hmm. yoo xam ne dañ ko war a jël. mais loolu aussi dafa laajoon onze millions cinq cent. ok 11 cinq 500 yooyu maa ngi woon ci mobilisé ko ndax mënuñu woon a wax nit ñi ne leen nañ dajale xaalisu engrais bi. ndax boobu da euh, dañu waroon dañu waxoon dafa ma waxoon ne ma 11 euh, millions 500 yi euh, da nga ko war a joxe ñu war ko dugal pour nguur gi jàppale leen ci engrais. mais bi ñu commencé déroulement xaalisu gerte gi ba dugal ko ba pare ba ma dugal xaalisu gerte gi mu des engrais bi mu war a toppatoo ci engrais bi. laa ko mujj laaj mu ne ma engrais bi daal moom nañ bàyyi ba déwén ren boucler nañ. Mhm. loolu moo tax mais mujjoon nañ am cent cinquante tonnes ba mu yàgg mu ne soixante quinze tonnes la ba mu yàgg daal mu ne boucler afro engrais bi moom boucler nañ ko. Mhm. arrêté nañ ko mais nañ jàpp ci lii ba déwén. Mhm. lii nag euh, COFDEC moo ko lijjanti. COFDEC euh, teg ko ci loxo coopérative bi. Euh, ci ndimbalu conseil départemental du président Assane Diop. ñu ñu ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu nawet bi baax. ñu fay ko ñu wax nit ñi bu nawet baaxee bu baaxut kenn ku ne li nga fi jëlee fu ñu la wax ne yóbbu ko nga dem fay ko yow la fa nekkal. Mhm. parce que euh, am nañ déjà premier premier accord ak Sonacos boo xam ne at mu jot incha allah gerte gi day yokk waaye du wàññeeku. nee na ma ren li ñu leen jox nii 148 tonnes yi déwén mën nañ ko triple. Ah waaw mu nekk ay 300 nangam tonnes. 380 ah. ba 400 tonnes mën nañu ko jox déwén. ndax ren dañu yéex a jóg. Mhm. mais bu ñu teelee jóg par rapport ak yeneen ak yeneen. insa allah yàlla mën nañu dimbale ba nga xam ne déwén li ñuy joxe mooy ëpp li ñuy joxe rek. ok comme ni ñu ko waxee rek euh, bi nga faloo yàggul matu 6 mois ngeen décroché 148 tonnes. Mhm. loolu rek je crois que bu ñu def bilan mën nañu wax à 50 pour am nga loo réussir. Mhm. lu am solo parce que liggéey bu am solo la. Mhm. benn message nga am pour population bi nga xam ne ñoom itam duggoon du ñoon ndax am nañ ñëw pour mën a continuer dugg wala mbir mi dafa tëj. message bi daal bi may am mooy keroog bi naa leen ne leen. bu ci affaire politique duggee. bés bu ma xamee ne politique dugg na ci mu leer ma ne politique a dugg. Mhm. keroog damay jónnee sama démission damay bàyyi. Mhm. ndax man affaire bi politique taxut ñu jox ma ko. Ah dama nekkoon nitu développement. di jiite benn association bu ñuy wax ku Koungheul bokk FONS. Mhm. FONS mooy association de euh, euh, FONS mooy fédération de groupement associés bu nekk Thiès. boo xam ne def rek Dakar yëpp euh, kii xam réew mi yëpp ci bokk. 32 associations ñoo boolante jiital FONS ñu jiit ñu formé euh, CNCR formé aspora bi lépp ci mbootaayu FONS la. Mm-hmm. am naa fa léegi lu mat ñaar fukki at wala fanweeri at yàlla def na jiite bokk naa ci ñi ko ji ñi nga xam ne ci conseil d'administration bi lañ bokk. Mm-hmm. Euh, ci lañ ma jëlee wax ne naa ñëw jiite lii bon ñëpp laa emale politique nag bu ci duggee rek damay bàyyi dama bëgg daal incha allah ñu def ko ci loo xam ne. du doon benn politique. ndax ñu bëri ñu ngi commencé di wax naan nii wala naa. mais kof deg jotewut ak politique dara. jotewut ak Assane Diop dara. asan dafa am euh, xolam bu yaatu. gis benn affaire. war ñu ci jàppale conseil départemental la nekk mu jël affaire bi logé ko conseil départemental pour ñu doxal ko. Mhm. man gis naa loolu. Mhm. ndax bi ma commencé liggéey bi ak léegi laa door a xam Assane lim jublu. Mhm. donc ñun ñëpp ñu fas yéene góorlu ci mu nekk suñu coopérative boo xam ne dañuy dem ba am fii taxawal suñuy oto taxawal suñuy ah, magasin taxawal suñuy lépp daal mooy li nga xam ne man moom lay wax euh, population bi. ñu bañ ko def daal ne politique la rek nangam nangam yëf daan ñëw ak bokkul. Ah, kof dëkk coopérative la boo xam ne baykat yee ko bokk. naatal Koungheul ko tax a jóg naatal Koungheul moo ko tax a jóg. nañ fas yéene luñ fi jël ñu fay ko. Mhm. buñ ko fayee ñun la fay nekkal dafay dafay nekk loo xam ne ñoo ko moom. ñaareel ba tegu ci. Mhm. Euh, adra yi nga xam ne dañ ko looy laaj individuel yi nit ñi. Mhm. vingt cinq mille yooyu nga indi moo la tax a bokk ci coopérative euh, tekkiwut ne apport la tekkiwut dara vingt cinq mille yooyu tey moo tax nga mën a am. juróom benn barigo juróomi barigo juróom benn barigo gerte. ok vingt cinq mille yooyu. Mhm. moo la ko may tey ñi ci defutoon vingt cinq mille nga xam ne bokkuloo ci mbootaay gi. Mhm. amuloo ci GIE. defuloo woon individuel. seen xel daajut ñu ñëw taxaw fi ne dañuy bokk. vingt-cinq millions yi nag moom part sociale la boo xam ne dafay dugg ca banque ba lañ ko dugal kilo dërëm du fa génn. tey boo baxoon it doo ko jot. ok ku ku ba. Mhm. doo jot sa vingt-cinq mille. ku bokkul li nga jël yóbbu ko ca. Sonacos pour mën a jot gerte gi. waaw bokkul euh, ku ba doo bokk doo doo jël sa vingt-cinq mille ndax moo lay wan ne la mbootaay gi bokk naa ci ndax règlement intérieur yi ak charge bi charte yi wane nañ ne mbootaay boo ciy bokk. par sociale ba nga cay duggee. mooy loola loolu nag mooy individuel vingt cinq mille gën gaa tuuti euh, kii ñeenti junne. coopérative wala GIE ñeenti junne. ba tax na tey gis nga ni ñu seddalee mhm. vingt cinq mille ki ko ci defoon da ngay am six cent kilos. Ah. mais su fekkee ne nga xam ne individuel euh, euh, individuel yi ñi ko def parce que am nañ six cent kilos xam nga quatre cent kilos. Mhm. mais ki nga xam ne dafa bokkoon ci mbootaay soixante kilos kese la am. donc sa 25000 yooyu nag moo la may. fois 3 fois 3 ba muy donc loolu moom lañ ko. muy lu muy muy lu jar a leeral ñu xam en tout cas nga xam ne GIE lañ duggee. Mhm. xaalis bañ versé. moom dootuñ ci jot. ñi duggee individuel xaalis bañ verse dootuñ ci jot loolu nag moo lay feeg yaa ngi yaa ngi yaa ngi tooy. Mhm. moo lay wan ne la ci coopérative bi nga bokk. waaw te lu ñëw am nga ci droit. am nga ci droit lépp lu ñëw am nga ci droit. Mhm. moo tax bi ñuy séddale dañ emale ñëpp dañuy xool li nga xam ne mooy nombre de membres yi nga xam ne moom la ñu ñu diviser ko ñu seet membre bu dee dana am 60 kilos. kon daal képp ku ku ku ku joxoon sa adara. am ñëpp seen wàlla ngi moo tax ñu def ko nii sauf ñi nga xam ne dafa amoon erreur defaguñu ak ñoom calcul. ñu ñoom xam naa ne dana am tuuti jafe-jafe mooy bu yéexee ñëw. Mhm. parce que bu ñu yéexee ñëw parce que xam nga tooguñu woon def situation bi yëpp yëpp. Mhm. amoon na lu des ña mujjoon a ñëw noonu. suñu yéexee ñëw mais ba tey ku ci ñëw fekk gerte gi di jeex. jeexu nga dem bu fekkee rek loo fi sa sa kii da ko jël. ok muy lu am solo lañ ñëwoon pour waxtaan ak Seck Ndimbalane nekk ko xam ne tey moom moo nekk moo géré Cofdek naatal Koungheul comme ni ñu ko waxee. muy nekk lu xam ne bi mu taxawee léegi yàggut ñun ñun nag suñu ñëw fii day gën a firndeel ne wane ne kii jàmbaar la kii liggéeykat la parce que wax ji bëri na ci dëkk bi que lii du mën a nekk lii du nekk dañu leen nax dañuy sa gerte tu leneen leneen mu leen ko dencal ci ayaat dina ñëw ci COFDEC parce que jot na 148 tonnes mhm. tu buñ ko defee ni mu waree ngeen fay bori nu waree joxe ko nu waree déwén mën nañ am plus de 200 wala 300 200 wala 300 ah, kon sekk ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax kàddu gu mujj gi jërëjëf waaw maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ne mhm. coopérative bokk mhm. ndax dañu ko dañu arrêté woon adra mhm. euh, bu suuf sedd bu seddaatee bu ñu ko ubbee danañ ko wax ne ñu bëgg def adra nga xam ne parce que coopérative bi dafa war a yaatu yeneen nag du gerte du jiwu rek am na am na am na ay wala yu bëri même coxeur yi chauffeur yi sax dañu ñëw adra ci bokk na dem na ba nga xamee ne bi ñu joxee gerte gi ñi nga xam ne gerte intéressé wul leen dañ ne ñoom jëluñ jëluñ gerte parce que bëgguñu yàq tilimal seen kii leneen ñëwee ñoom ñu war caa jël dañ koy jot. ok kon nag euh, mbir mi sekk neen la am na leneen lu ñu fekk dañ ko. ñu ngi ñëw kon jërëjëf euh, monsieur Ndimbu